وجهت وجه من ja asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuy bu baax di leen ziara waaye nag ku wax journée xasida ku wax ndajem Serigne Touba Cheikhul Khadim da wax bernde ku gis ah, nag yi nga xam ni moo nekk suñu ginnaaw xam ni dox nañ nag ay kilomètres yu baree bare baree bari ngir mën a yegsi ci barab bi la nga xam ni fii la ñu taxaw di jàkkaarlu ak yéen loolu yëpp rek ngir waajal bis bi waaye ngir waajal bernde yi ngir gan yi nga xamante ni dañu fiy ñëw ndax Serigne Touba Cheikhul Khadim kat daf ñoo woo ci ak sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala te ko nekk xam na ni cant moom suñu ko waxee bernde daf ci am wàllu ama am solo tax na ñu dox kilomètres yu baree baree bari dugg ci biir àll bi fàggu ay gàtt yu ama am am solo nag yu baree baree bari lépp rek ngir waajal bis bi ci ay bernde yu ama am solo kon noonu la ñuy def rek incha allahu rabbi ànd ak yéen dugg ci biir ci wàccaayu bis bi ak bernde yi incha allahu rabbi mi nga xam ne ñu ngi ko fekk moom it ci liggéey bi lépp rek ci wàccaayu bernde yi incha allahu rabbi sëñ ma koddu ñu ngi lay siyaare bu baax waaw di la dégg suñu micro rek laaj moom naka ngeen di waaji bis bi ak kañ ngeen teew fii ci wàccaayu nag yi sant rek ñu ngi si fajar lépp si fajar lañ ko commencé yen daal yéen a ngi yéen eh, bu baax a ci bernde yi ndax ku wax moom wax bernde dëgg la dëgg ñu ngi koy waajal ñu ngi koy bu baax wala xamit xam la bu baax baax ci wàllu waañ wi mat na macha allah si si yéen lañ jaar yéenay suñu kilifa ah, kon alhamdulilah kon noonu ngeen ko gisee rek. bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah min shaytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi leen di xaar bu baax képp koo xamante ni bi yaa ngi dégg suñu kaddu tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak ñaanal mbokk taali bi yëpp ñu am fi loolu ak eh, ànd ak wér tey eh, am nañ mbégte ak contentement bu wér ndax it lii daa nekk lu ndaw ay mbokki taalibe ñoo dajale seeni ñàq maanaam jëm ci bisu sell ci loo xamante ni maanaam nee nañ mooy karam sëriñ bi pour di ko yëkkal maanaam fu sore sore sore sore ca fañ cosaanoo kon maanaam lépp luñ ci def rek dafa tasanteeg ne fa la doole yam waaye maanaam bu buñ amoon buñ amoon loo xamante ni ëpp nay nag sax danañ ko ci def ndax sëriñ Touba moo toll noonu wa mën nañ sax Euh, euh, rectifier kàddu woowu suñ tuwaa tollu nen noo xamante ni maanaam nit mën na koo misaal nit di ko xam amul dayo daal waaw amul dayo wax nit ma na koo xam di ko wax ni xel xel xel du ko daj waaw xel du ko du lu ñu daj xafistuma si naa nit dafa tiri waaw kay <laughs> moo tax nag maanaam yii ni ñu tàmbali ci ak ab dox la rek jëm ci bis ba mhm. ndax it boo demee ca fañ jóge nii maanaam ay kilomètres yu bëri comme ni nga ko waxee am na yeneen xéewal yu fa nekk yoo xamante ni ña ngi koy waajal waaye fii ne nga xamante ni fi lañ tàmbalee bis bi mhm. ñi ngi nii nii comme ni ngeen ko gisee nii mhm. waaye di ñaan suñu war a ñëw yàlla saa borom tegle ci yoonu jàmm ba ñëw ci jàmm ak salaam delluwaat ci jàmm te lépp luñ fi sàkku saa borom jàpp nal ñu ko incha allahu rabbi salaamaaleykum wa rahmatullah arama ko keneen ci ñoom soog kon wàccaay waa ngi noonu incha allahu rabbi fas nañu yéene daal lépp loo xam ne rek yell na ci bis bu ñuy tuddee Serigne Touba Cheikhul Khadim na di ci màggal mbindum loxo moomalee nga xam ne moom la doon wax ni karaamati yi xattu yaddi yi mboolem lu ciy aajowoo rek ñu ngi koy waaj incha allah rabbi